Il est à la fois le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'agriculture du Royaume d'Arabie saoudite. Une charge aussi transversale que les différents sujets abordés au cours de cette séance de travail. Autour du Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal et l'Arabie saoudite arrêtent dix axes de coopération, partis pour être des plus emblématiques, une autoroute de l'eau. Comme vous le savez, au nord, on a de l'eau. On a besoin de l'eau peut dans des villes comme tuba On a besoin de l'eau dans des villes comme Dakar. Peut-être créer, comme l'a fait nos, nos, nos, amis et nos frères égyptiens et marocains, en créant l'autoroute de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose que, que euh, c'est un point sur lequel on a, nous avons parlé. Nous importons beaucoup de riz, million de tonnes jusqu'à 1,5 million de tonnes. Nous importons du maïs, 450 000 tonnes. Nous importons du blé, Euh, entre 600 et 800 000 tonnes. Nous importons du maïs, nous importons de l'huile, nous importons du sucre et, nous, avons aussi la, les possibilités de produire tout ça là. Avec mon, mon homologue, euh, avec mon frère saoudien, on a parlé comment nous pouvons accompagner le secteur privé sénégalais, le secteur privé saoudien, de venir travailler ensemble pour saisir ces opportunités-là. Une autoroute du nord vers les zones plus arides mais aussi des productions diverses dans les régions du Sud. L'Arabie saoudite montre toute sa détermination à consolider la coopération. Nous avons à cœur de relever avec le Sénégal le défi de la sécurité alimentaire. C'est l'un des axes majeurs de cette coopération que nous voulons renforcer. Nous sommes là aussi pour voir comment le secteur privé des deux pays peut saisir ensemble toutes ces opportunités dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Arabie saoudite, grand producteur de pétrole, puissant pays du Moyen-Orient, riche mais désertique, est aussi une terre d'opportunités pour le privé sénégalais. L'Arabie saoudite, euh, compte tenu de son climat désertique, aurait besoin de beaucoup d'arbres fourragères. Il y a aussi une excellente opportunité pour les privés sénégalais d'exporter des fruits et légumes au niveau de l'Arabie saoudite, d'exporter aussi de la viande halal au niveau de l'Arabie saoudite. Et ce sont ces axes de coopération-là sur lesquels nous, avons, nous, bien parlé. compte tenu de leur expérience aussi dans le domaine des oil gas, euh, dans le, euh, nous nous, sommes dit que, peut-être on pourrait apprendre d'eux sur ces axes de coopération-là. La séance de travail présidée par le Premier ministre était élargie aux experts des deux ministères. Le ministre saoudien était en plus accompagné de l'autorité publique en charge de la sécurité alimentaire, la Société saoudienne d'investissement agricole et de production animale,